acca mu ngi noonu alors di déglu bu baax a baax si souci technique bi nga xamante ne actuellement ñu ngi koy am euh, problème connexion yi xam actuellement euh, nu mu nu nu mu mel waaye ngoone ñu ñëwaat ci li nga xamante ne aussi mooy actualité jëm si ki nga xamante ne aussi mooy l'artiste studio people la ñuy waxtaanee ak euh, li nga xamante aussi nemmee ko nañ ko ñu bëri jàpp ne fake news la waaye tamit ñu bëri jàpp ne dëgg la xamuñu exactement c'est des questions qui se posent ñu jàpp ne studio bi actuellement dafa takk jabar waaye tamit ñu génn ñu gis yenn si dafa am xale mu tooñ ba takk ko Ngoné même bu nekkee fake news est ce que loolu yoo xamante nii en tant que Sidi Diop ak image fu mu toll ndax mhm. Sidi Diop tollatul foo xam ne dafay sol li nga xam ne mooy ay bad buzz ak yu kenn xamul absolument du dëgg mhm. parce lu njëkk ba comme niñ daan def ñu lancé seen seen seen i affaire génnee li nga xam ne moom mooy seen album wala génnee seen single lan moo tere artistes yi ñu delluwaat ci loolu mm-hmm. mais da xool tamit waxuma la sax dara koo xam ne gëj nañ koo dégg sax foog mu créé benn bad buzz boo xam ne nit ñi dañuy veillé ci moom wala di wax ci moom mën a exister du dëgg mm-hmm. Mm-hmm. ku ci mel ni Sidi Diop man pour man soxlawu loolu muy toog di def loo xam ne ne ay jamaa am jabar wala may nañ ma jabar di genre daal xam nga mhm. gis naa ko ci estati mbay mbay wax ma laa même chose dama waa dafa takk jabar benn hôtesse de leer la xam nga mbay rek ay sooba man dama mhm. ko gëmoon man bi ma yegsee fii sax laay doog a gëm xam ne ne kon affaire bi nekk nekke ndekete du dëgg mhm. dafa rafetul mhm. parce que lu mel ne Sidi Diop xam nga tey am bongo defoon na ko ci ay saaga am ci mhm. ay affaire de vulgarité yëpp génn ci Sidi tamit la même chose ñëwaat ku ci mel ne sëñ Bada di laay fii di wax ba pare image boobu moo rafetul sax ci jëmm Sidi Diop ay dafa ëmbal ak kii xam nga yii nii da nga koy def ba nga xam ne tey bis soo newoon tey ji damay takk jabar sax am naa am leer na ma maison presse yu bëri sax duñ ci du leen jaral ñuy mhm. déplacé wu. ndax dañ naan toujours ay rumeur la ak ay bad buzz. kese est ce que Sénégal ñu jàppee showbiz moo salté ngone. non ñu jàppee ñu man pour man lii du showbiz. Mhm. ndax showbiz boo koy def da ngay def lu tàng jër. Mhm. sa morom def lu tàng jër ngeen concurrencé ci musique ngeen di concurrencé mais pas di nax nit ñi. ñun woo ñun sëkkuñoo ak ñoom ay nax ñuy war ñoo jox loo xam ne dañu koy nax dañu war a jox togg ba mu neex ñoo jox ñu ne sotti kat. Sidi Diop de suba la album bi di génn wala suba la singalam di génn ni ñuy dem kar ko YouTube bam xool lu mu def ñi nga xam ne ñooy ay soppee Sidi Diop dem jënd ji ko mais toog di wax lii ay dafa ëmbal ak dara ambongoo def na ko mhm. ci affaire koo xam ne ne kuy jaay boppam la ay fayma fayma wala dara mhm. Sidi Diop ñëwaat tamit répété waat la ci loo xam ne tamit ay ay affaire yoo xam ne la ay affaire ëmbalante ba pare image yi ciy dugal sax moo njëkk a ñaaw mhm. image yi ciy dugal moo njëkk a ñaaw man daal su ma sañoon nii ma gis tey musicien Sénégal yi ko doxale artistes yi di ko doxale man jaru ko bu njëkk ba nga daa wax ne na sorti dañ daan publicité ne sorti albumu diw suba la mhm. wala sorti single suba la suba à 16 heures wala suba 17 heures nit ñi toog di ko xaar seetaan apprécier ñu bëgg dem jënd ñu bëggul tamit mooy loolu nit ñi kontaan partagé mhm. fépp mais ni ñu koy defee rafetul ci mhm. image yi waaw lii day tax rek est-ce que aussi tamit du ñu xool seen plan de carrière jumbo di c'est-à-dire artistes yoo xamante ne aussi ils sont au Sénégal di am xaalis est-ce que tey jii nii du ñu dem ci nga xamante ne aussi mooy ñi nga xamante ne xam nañ communication mën nañ ko mën nañ marketing et communication dem fay fa à ce que ñu mën leen defal seen seen communication nu mu waree mais des artistes yoo xam ne dañuy gis ñu dugg ci ay ay fake news dem ci ay faits divers yoo xamante ne kenn xamul lu mu demee dem sax bay tey di salter sa image est-ce que aussi tey boo demee Europe da ngay gis des artistes yoo xamante ne dañuy fay euh, xaalis bu bëri ay agence ngir ñu gérer leen seen image mm-hmm. et Sénégal dañuy gis bu ñu mënee gérer seen image ci ay saaga la dañu koy dañu koy jàppee ou même o hmm. et yoo xamante ni tey ji nii euh, ku nekk taxaw en plein air di saaga est-ce que tey ji nii warul euh, euh, warul ñu dem xoolaat seen doxalin jumóore hmm. xam nga tey <laughs> askan bi nii bu fekkente ni Sidi Diop lii Sidi daf ko def hmm. ñun askan bi dafa am fu ñu tollal Sidi Diop te Sidi Sidi tollalu fa boppam loolu mooy waral yu demee nii parce que xam loolu ma ni askan bi dafa am fu ñu tollal Sidi Diop. te Sidi Diop tollalu fa boppam. Mhm. xam nga mooy lan. Mhm. mooy ni boo xam nga tey euh, booy seet Sidi Diop euh, wax ji coow li nii coow li coow vraiment moo ko indi sax fii mu nekk. Mhm. parce que sooy seet woykat la de ku mën a woy la tamit euh, nit la ko xam ni ëllëg. yaakaar nañ ko si musique gu pour mu téye ko mais euh, Sidi euh, dafa nekk suq ñu koy làng ay mbër ci ay wax. dafa nekk suq. Hmm. ñu koy làngalee ak ay mbër ci wax. c'est-à-dire yu ma ni. Hmm. Sidi Diop xam nga xale la. la xam nga Sidi Diop diggante bi mu fi commencé ak léegi. Hmm. daanaka mënees na koo nettali. yaa ngi dégg mënees na koo nettali. wax dëgg yàlla yàggul dara yàggul dara mhm. du dëgg mhm. mais dafa mel ni ku fi def téeméeri at mhm. léegi dama ni dafa nekk artiste bu ndaw yaa ngi dégg ñu koy ñu koy ñu koy mottalee ay wax ba def ko bu mag loolu suñ la ko defee tey nga am lu nekk sa bopp soo waree génnee kaset da ngay tiit te nit ku tiit du ànd ak xelam. Hmm. parce que ñàkk ànd ak sa xel mi ngi tolloog di génnee sa kaset ñu lay jiiñ biir. man su ma wax ju ñaaw ko hmm. wax bu ñaaw. Hmm. nga war a génnee kaset bu xam ne dafa war a yeete. yow ñu jiiñ la wax bu ñaaw kon kay jarul yow ngay génne kaset bi tegal kaset bi bind sa bopp way ko. am na wala amut. du dëgg. ba pare xanaa am loo artiste bu xam ne dafa pare def carrière encourage bi ñi lay wër. da ci joué parce que tey boo équipe bii gagné bii gagné match. Mhm. soo ko gisee xam ko benn jour bu baax kese mënut ta gagné match Sidi Diop kese du tax affaire bi dem. Mhm. ba pare communication bi ñi koy wax ñi koy wax rek ñu koy wax man ñi ma ko déggee ñuy wax ñooñu noonu xoola bëri na ñoo xam ne duñ déglu ñooñu fu ñu leen gis jàppe leen. dëgg ndax image bu ñaaw. image bu ñaaw. Mhm. am image bu ñaaw. ñoom ñoo ñëw di wax wax bu ñaaw. lu dëgg ba pare Sidi Diop am na ay temps deful bat buzz te kasetam da daan dox 5-5. Mm-hmm. léegi lan moo ko jëlee ci li mu doon njëkk a def parce que coow li coow li léegi mu leer yooyu mu wayaat mu doon way yëpp deful woon bad buzz te ñëpp jotoon nañ ci kaset bi. Mm-hmm. léegi lan moo tax mu dem ba tey di def bat bad buzz Sidi ni mu commencé commencement bu rafet la commencé. zéro gàkk. Mhm. léegi lu tax mu dem ba ci kaw gàkk-gàkk yi bëgg a feeñ. Mhm. ñu ciy dugal ñu ci bokkut. mais est-ce que man du ma jàpp ne aussi tamit ñàkk gëm boppam si si si kaw euh, tey euh, ak ni mu mel artiste ni mu mel muy mottali ko ay influenceurs yoo xamante dañuy taxaw ku nekk taxaw di andi ay kàddu ñaaw di ko teg ci xam nga artiste mel ni studio nga koy mhm. ji ne dafa tooñ dafa tooñ doomu jàmm. waaw ba pare takk ko si kaw ci kaw ëmb affaire yooyu. waaw absolument xam nga tey moo wax lu studio waroon mën a nangu la. waaw ok xam nga tey. rafetul ma ma ma wax la dara. xam nga lan moo njëkk di dëli hmm. bi baa bi ñu toogee Sénégal nit génn ni maay waxkatu diw dëli la hmm. imagineel ma génn naan maay waxkatu waali waxal hmm. li may wax man la engagé engagé wul waali li keneen di wax moom la war a engagé warul engagé di Diop mais tey sooy wax dara cité ko comme tey ma ñëw di wax dara cité ko si Waly Seck mais man damay yàqal Waly wala dama koy defaral waxal xañ naa sañ wax sama xalaat comme ñu ne ah kii xalaatam rek lay wax mais kee génn di dëggal ba ci saaga ay ndey. Mm-hmm. yaa ngi dégg kooku moom du lu rafet. ba pare Sidi Diop dafa am benn affaire bu mu porté bu xam ne daf ci war a bàyyi xelam moog Pape Diouf ak Waly Seck xam nga mooy lan. Mm-hmm. mooy musique réew mi tey ma wax la dara. am da dafa am lii dafa yàgg. Mm-hmm. am na ku réew mi mës a yóbbu concours adduna bi yëpp musique mu jël avant ba mu jëlee avant ndaare day mel dafa meloon ni dafa meloon ni Sénégal danoo deelal ku rëy. Hmm. daf ñu mitti woon darul may fàttali fàttali hmm. turam. avant ndaare gi am na ñu ko hmm. fekkewul yaa ngi dégg te ba ñu yóbboo Baaba Maal mu jël cinquième Sénégal gépp a kontaan ak musique àdduna bi yëpp Baaba Maal jël cinquième position. moom moo waroon a jël première sax mais der bu ñuul bi du dëgg. kon tey musique boobu noonu Baaba Maal yoroon musique bi. Euh, Youssou Ndour yoroon musique bi Thione fekk yoroon musique bi keneen ak keneen ak keneen yor loolu lañu jëlaat tey teg ko ci ñoom yaakaar leen ci nag ñu yóbbu ko ca kanam gis nga dañuy concurrencer nii rek mais ku ci génn ci biti di nga ko faral. Mhm. du dëgg kon léegi soo su fekkee sa biir daa salte est sa biti dina set. dëgg la. waxal. Mhm. kuy fanaanoo yut boo xëyee doo am loo wàccoo. mais man Dioumbory euh, euh, n'est-ce pas Dioumbory man je pose la question est-ce que Sidy Diop il est très bien entouré c'est-à-dire euh, artiste bu mel ni Sidy Diop tey quel soit alpha Sidy Diop kenn mënatu ko bañal dara parce que talent mu ngi wax musique am aussi tamit mu ngi wax mais est-ce que tey warul toogaat xool exactement plan de carrière am maanaam ñu bañ ko dugal ci ay détails yi nga xamante ne mu ngi. waaw xam mhm. wax ne la soo dee compter ay cassette cassette cassette mhm. ndax génne na cassette quoi. ndax Sidy Diop na génne na cassette. waaw. ah mais Sidy Diop mu ngi génne ay clip mu ngi génne album. non single bul ko jaawalee ak cassette. Hmm. non dañuy wax ni loo bëgg a wax Sidy Diop defagul ay problème Sénégal. ana album bi. yéen li ngeen di coow lépp gisu leen album de. mais dama coowlee coow ba yóbbaa ba nëbb lu bari. loo bëgg wax exactement si si si si Sidy Diop plan de carrière bu tax ñuy wax loolu nga bëgg a wax. non xam nga tey plan de carrière. Mhm. ah boo ko bëggee def. da kay koy da nga koy da koy régler nit ñi gis ni sa bëreet jóg na nga am vision fi nga jóg. am avancement yaa ngi dégg. Mhm. mais Sidi mën a way gi ma nga fa. Mhm. musique bu baax bi ma nga fa. Mhm. mais Sidi da tey fi muy dem sénégalais yi xamuñu ko. parce que tey ay coow nii affaire yooyu jugul ndaanaan bu ndaw. lu dëgg. xoolal lu pare la ñuy nekk di coow musique moom ak coow ñoo ànd aar kër bukki la ñàkkul coow mais coow dafa teer ci moom parce que bu ëllëgee ay moroomam yi nga xam ni ñoom la bokkal génération ñooñu jógaguñ sax ba muy ba coow ba coowoo di am léegi dañ ko jël classé ko fu xam ne ñi muy coowal bu doon man maa yore di Diop ñi muy coowal damay dindi coow li foofu parce que damay xool ki nekk ca kaw ne ko boo fi jógee maa fiy nekk loolu laay wax ba dab la mais du ma fi nekk naan la foo ne ma ne fa doo ko tal. Mhm. foo xoola musique bëggul foo ne ma ne fa foo ne ma ne fa mhm. saa boo ko dugalee ci musique yaa ngi dégg waa ji dina nekk foo dul nekk te di nga financé loo war ta financé mhm. parce que da ngay bëgg mu rafet ba nga xam ni da ngay nëbb lu bëri du dëgg musique dafa am musique da nga koy def step by step tey step by step ndànk ndànk ndànk ndànk aar du biir day xëy wasin mhm. musique noonu la mel bala mu laa teral dalay toroxal ba pare boo nangulul toroxtaange gi nag xoola doo mujjee lu dul ay bor yoo nëbb ci suuf mhm. ay yii nii affaire yooyu man de man bu ma nekkoon waykat am na ñu xam ni du ma gestu gis leen sama ginnaaw mhm. am na benn musicien bu mag bu fi nekk bëgguma tudd turam da daan wax ni moom munul taxaw ci kanamu micro di way ñenn ñi di ko féete ginnaaw waxin la la yaa ngi dégg soo buggee tey nga avancé boo taxawee ci micro bi fexeel ba yow lu bokkul ci musique bu mu la féete ginnaaw du dëgg tey jii ñenn ñi nga xam ne dañuy dugg ci musique bi di wax kenn ko ci Sidy Diop doonoon sa rakk walla mu doon sa mag walla mu doon sa mbokk am na ñu bëri ñu ciy wax ñu xam ni bu ñu doonoon bu ñu bokkoon ak moom ndey ak baay noonu ñuy jéema def duñ ko def parce que li li nga bëggal sa bopp boo ko bëggalee boo ko bëggalee di Diop am na wax yoo xam ne doo ko ko waxal doo ko ko defal. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mm-hmm. waaw ngir mën a sàmm image loolu mooy affaire bi absolument tey jii booy seet abu cuba la benn cassette la génne mais cassette boobu ba tey solution non mais no solution la doon wut am ku mu dugg bi mu ci duggee laa ne ko doo sa solution doo ko am <laughs> mais déglu ma wax la tey cassette boobu ba tey foo ko teg ñu ngi fépp. absolument solution moom beneen beneen affaire la. alors nga foog ne aussi ju lu mu wax du dëgg euh, jot na artistes yi xam exactement seen valeur jot na artistes yi xam aussi tamit nan la ñuy. kan a àndal seen aussi xam ku ñuy àndal. aussi ndax aussi saaga yorul réew aussi. non saaga yoru réew ba pare mhm. ay saaga ak ay bad buzz yenn image yu ñaaw yi dafa rafetul. Mhm. ci ci ci li nga xam ne mooy image yu artiste. kon siid dafa jot mu xool boppam ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy génn ba ci am bongo ñeneen di def ay ay bad buzz yoo xam ne surtout ay image yu ñaaw lañ ciy génnee te internet yaakaar naa lépp lu ci sa a dugg du fay ba say sët xanaa doo fi toog boo màggetee ba am ay doom yu bëri ay sët ku ne nga expliqué ko naan ko bad buzz la woon dara même bu dee bad buzz sama image bi nga defee ko neneen ci bad buzz waaye mm. surtout ci ci ay genre ëmbalanteeg ay tëddee nga maag war nga maa fay ak mm. yooyu yooyu dafa nekk yoo xam ne image yu rafetul mm. te Sidi Diop bu dee loolu dañ ko ko conseillé na ci génnaat a baax baax a mm-hmm. baax bu dee dañ koy ko conseillé na génnaat bu baax ndax Sidi daal na toog joxe heure am ne heure bii sëngalu siidi Diop dina génn te nit ñi dañ ko fa daan xaar ci ci ci seen chaîne YouTube am ci affaire suba teel te dañ ko doon seetaan mu neex loolu macha allah te teewul ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo bëgg Sidy Diop dañ ciy taxaw ñeneen ñi di ko dagg di poste comme ni ñu koy defee ci ñëpp challenge ko comme ñëpp mais yii nag moom rafetul ak képp koo xam ne ku koy jël di ko def rafetul na sàmm li nga xam ne moom mooy image am mhm. nga foog ne euh, euh, euh, maanaam Sidy Diop dañ ko yenn lu mu antanul man moom la à chaque fois mhm. ndax à chaque fois Sidy Diop ñu koy gis ci ay concurrence ñu koy gis à chaque fois ci ay wax yu sew yoo xamante ne dañ koy gis sax si kaw seenam daf koy gétte nga foog ne Sidy Diop dañ koo yenn lu mu antanul exactement waa ku yenn lu diis nag foo jaar soppi saw doxin bu mm. dee dañ koo yenn lu diis moo tax nag mën naa ne doxinam daal di soppeeku waaye na xoolaat boppam rek parce que nit ki fii ah, kenn du sa yaay kenn du sa papa kenn mënu laa def la loo xam ne waruloo ko def du dëgg mm-hmm. nit koy mënta àndal da ngeen ne ànd muy liggéey rek dafa gisul ci moom talent fi mu nekk bu ay son muy neex di ci def yeneen ak yeneen muy neex te genre bad buzz yi ay ëmbalante daanu ci am daanu ci luy jëriñ nit ay nit génn naan danga laal sama artiste di la saaga ak ay affaire yi Mm-hmm. xam a tey kenn ku si ah, nekk. seen artistes yi moo siiw moo tax ñuy wax ci ñoom aussi. waaw non non xam nga xam nga tey xam nga la boo xamante ne nii ku nekk day jéem a ñor xamante ne. waaw mais xam nga tey siiw. Mm-hmm. bu ñu demee ba yow li nga siiw doyut. absolument ngay wut ñeneen nee nga. ñu la gën a siiwal. ah léegi yow siiw tey siiw loo am ci siiw pre boo gis li mu am ci première bi mu nee bërët. loolu yàlla moo la ko jox. mais bi nga nee bërët. li nga gis noonu ba ay nit yu la toppul woon topp la ku la ko jox du yàlla. dëgg ndax yow war ngaa def sa bopp ni nit mun na laa jox lu la yàlla joxut. Mhm. xoola bi boo nee bërët gis loo war loo gisut woon xoola jàppal sam xel ni li ci des liggéey moo la koy jox. mais du tappale mais du tappale dëgg la alors. Euh, waaw euh, mais boo bëggee mottali koo ay tappale mhm. tappale moom kol kolam amut tappale xam nga tappale day mhm. day day décoller rek wax dëgg yàlla. acca muy noonu euh, Ngoné ñu jàllaat si beneen cas muy cas bi moom cas la boo xamante ne nii ñu bëri